lii mooy grand combat bi dox ci diggante Badou Fall numéro 2 ak Libidor numéro 2 ñaari numéro 2 kan moo ciy fere numéro 2 Libidor Sénégal bi la nekk Badou Fall écurie Thiaroye la nekk écurie Thiaroye ba mu ne fa la Baye Mandione nekk fa la Baye Mandione junior ne fa la gépp def benn bopp. mbëru caara yëpp booloo nañ doon benn def ko benn ékiri ndeysaan Badou Fall a ngi noonu hey kookoy Badou Fall Libidor xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci lamb champion la mën na bëre mën na xeex Libidor te lambam da ciy concentré wu di ree rek comme numéro 2 ba numéro 1 ba noonu la mel muy Libidor bu Ngunjaan ndeysaan moom la duppee boppam cey làmb arbitre bi sifflé na mbokk yi arbitre bi sifflé na dimanche premier mars 2020 fii ci stade bi nga xamante ni mooy stade stade Bargny jërëjëf sëñ Bass ndeysaan stade Bargny xale yaa ngi noonu ñoom ñaar def nañ ku ci nekk may na sa morom distance waaye yàgg-yàgg dinañ laale Badou Fall tànk ndijoor la jiital Libidor tànk càmmuñ la jiital lamb ji na pour ñu xeex du yomb ndax fausse garde la ak garde Badou Fall fausse garde la Libidor garde normal la ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo Libidor moo xaw a sut tuut waaye Badou Fall tamit njàmbaar la ci làmb boo ko xoolee takkaay bëri na moom Badou Libidor a ngi dox ndànk arrière na ci digg géew bi nee ko kaay fii lépp fii la war a leeree ci digg géew bi Badou Fall Libidor ñu ngay lewaatoo grand combat baa ngi noonu sëñ Basiru borom mbég meeg taar mi moo baax moo gore ndeysaan démb sama doom ji laa àndal Ousin Diop ñu ne arène nationale ma nga fa nii di liggéey liggéey bu mucc ayib moo ak Adama la grand caméraman nga xamante ne lum kadarewul baaxul looloy wasaare làmb ndeysaan nañ leen booloo doon benn say takk ko ci buum jox ko ko njukkale ko ko ndax sénégalais yi bëgg gi ñu bëgg wasaare làmb ndeysaan doolay jën ndox doolay waykat public doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi mënuñu leen a fay ñu ngi leen di jaajëfal di leen bàyyi suñu boroom mi nga xamante ne moo am fay yàlla na suñu boroom fay bi nga xam ne dañ koy dégg muy coronavirus yàlla nañu teggi dëkk ya mu nekk yàlla na fa yàlla def jàmm musal leen ci feebar bi ba ñëpp ànd ak taw féex gi doomu réew ya fa ne ne Italie ne Sénégal ne fépp ci doomu àdduna bi yàlla na leen ci yàlla muccal muccal ci mbooloo mi jullit ña ngay cokkaas na cokkaas na numéro 2 cokkaas na Badou Fall 2 ma ngi koy déglu cey làmb ña ngay ba tey Libidor Badou Fall Badou Fall jàpp na ci loxo bi sànni na benn waaye dalul ndeysaan Libidor Badou Fall Libidor Badou Fall Badou Fall ci tànk yi la jëm Libidor dóoraat na waaye dalul Libidor numéro 2 sànni na léegi waaye Badou Fall da koo moytu Badou Fall numéro 2 ak Libidor numéro 2. sànni waaye dalul. cokkaasaat na. na beneen léegi. sànni na beneen léegi. waaye benn coup dalul. cokkaasaat na ña xeex. ña xeex. Libidor a ngi dox ci koom Libidor a ngay dox ci koom Libidor Badou Fall Libidor cokkaasaat na mu ngi dox ci koom ndànk moom Libidor Badou Fall na muy concentré wu di ko déglu Badou Fall fayu na Badou Fall fayu na Badou Fall fayu na Libidor a koy dóor dooraat na beneen Libidor ni muy doore baaxul ndax kuy dalul dóor na ñett ku walla ñeent yoo xam ne benn ci ngelaw gi la ko sànni dooraat na Libidor door na sànni na Libidor jaaw na jàpp ko jàppante na ak Badou Fall jàppante sëq na ngejo Libidor jàppul Badou Fall bañ na Badou Fall bañ na Libidor a ngay jàpp jàpp bi baaxul Libidor da koo bëgg a mbot wala déet Badou Fall caxabal na ko mu bañ Libidor a ngay daj mu ngi door ci suuf mu ngi door ay uppercut dooraat na beneen Badou Fall siggi def na rotation bàyyi ko Libidor dooraat na Badou Fall nga yóotu Libidor jàpp na fi mu jàpp baax na rëccaat na ñu xeex mu ngi door ci suuf ma dóor ay rokkas Badou Fall loxo ndijoor bi jàppul waaye Libidor loxo càmmuñ ba jàpp na ña nga ca ba ñoom ñaar Libidor Badou Fall Libidor Badou Fall Libidor Badou Fall jàppante nañ ba tey ñu ngi dégloonte muy Libidor muy Badou Fall Badou Fall fayu na léegi benn uppercut bu dal Libidor fayu na jege nañ saako yi ñoom ñaar waaye saako yi fekkiwul kenn ñoom ñooy fekki saako yi ma ngay dóor mbot na ko génn nañ saako yi Badou Fall ak Libidor ña ngay lewaatoo Badou Fall garde la Libidor garde normal la hey ñaari xale yi Badou Fall Libidor ca ñoom ñaar Assane Ndiaye moo ñu fi woo njiital ga di Baol production waaw waaw ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ndaysaan da ngay lewaatoo ba ay sëñ Bas lay ree balaa da ngay lewaatoo di ëppali ree fii daa sedd ña ngay lewaatoo ña ngay lewaatoo ku nekk sa problème Pélissé ba jàpp nag am na ku di yóbbu ku nekk sa problème Badou Fall Libidor combat bi ña nga ca ñoom ñaar Libidor loxo joor boobu ku yi ñu ciy sànni baaxul da jam gauche doog indi droite mu doon une deux Badou koy déglu rek Badou Fall ni muy déplacé Badou Fall Libidor Libidor da ko bëgg a jàpp Badou Fall dóor dal na kaaw na daan na Badou Fall daan na Libidor jël bu rëy Badou Fall ko jël bu hee door bi dal na hee Badou Fall door na ko hee door bi dal na Badou Fall bi dal Nabi yéen barki Rasool la yéen Nabi man barki Rasool la lépp yéen. wallaahi. allahu akbar jërëjëf yàlla dalay fay soxol yow ba moromu ndeyam Lamine lépp yéen la luñ gis nag daan nañu ba ma Lamine kii alxuraanu karim Badou Badou Badou Badou kontaan nañu barki billahi lépp yéen oh. Badou Fall am nañ ci moom yaakaar ndax xalaat nañ ne ëllëg fu mbër di toll war na fa toll caaro yi ku fa judd rek mbër nga yaay am nag ful la ju mën a tax nga nga dëkkal mbër gi kon nag mi ngi ci yoon mi ci yoon defagul dara mais bàyyi leen ko xel mi ngi ci yoon wi di ñëw jërëjëf fils fils félicitation mooy li ma la waxoon sànq rek waa caare dan maa yab man tey ni may génne suñu kër ku ko fekke woon tey di nga xam ne tey defet waruma billahi ndax waaye sama booy yi nii xaalis bu bëri lan def ci man man xaalis bu bëri tey laa fi ñëwee mais Assane Ndiaye yàlla na ko yàlla fay xolam. Assane Ndiaye li mu bëgg ci liñ làmb yàlla na ko sunu borom defal Assane Ndiaye moo ma njëkk a indi fii premier combat sama premier combat indiwaat ma indiwaat ma indiwaat ma fii si grand combat mais waa ji naa la ko ne la moom damaa xeeb mais bala mu bala moo wax ne damaa xeeb na laajte ba pare. sama maam fa mu tëdd maa koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. ñëwal ma ma ci bërëb koy sant gërëm Ahmed Deme. maa ngi koy di ko gërëm conseil rek bëre Pera la Xarim ñëpp a ma dimbali jaajëf gaañ après lan gërëm